tey waa Guédiawaye info ñoo fi ñëwoon euh, si benn émission de sport mooy suñ première émission de sport ñu ñëw defee ko fii si stade Amadou Barry ñëw seet si centre des gardiens de but de Guédiawaye nga xam ne Kaana double zéro moo ko géré donc euh, suñ paree rek ñu dem nga topp ma ñu gis Kaana mu expliquer ñu centre bi nu muy demee ak euh, nu muy fonctionner. ma la ko waxee woon centre rek dañ ñëw stade Amadou Barry suñ première émission sport seet centre des gardiens de but Kaana double zéro euh, comme Kaana ngi nii nag ñu laaj ko lu ñu indi fii tey salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam wa euh, man maa ngi nuyu mbokku Guédiawaye yeeg mbokku Sénégal yëpp waaw di nuyu arrêtement sama xarit. Euh, ñëpp Kaana leen la xamee mais sa tur dëgg-dëgg lan la. man maa ngi tudd Khalifa Ababacar Fall. Khalifa Ababacar Fall waaw. gis neen centre bi nga Kaana double zéro lan Kaana bi. Kaana bi mooy sama nom sama tur mooy sama surnom bi Kaana ak sama numéro bi ma doon góoloo double bi parce que depuis 2005 ma reprendre parce que amoon naa fa ay fracture c'est la reprendre mais comme damay recommencer à zéro xam ma jël numéro double zéro bi. waaw loolu moo indi numéro bi double double zéro moo tax centre bi ma ko ubbee ma def kaana double zéro centre bi ban année nga ko créé. centre bi maa ngi ko créé 2003 2003 laa ko créé quoi parce que dama wax ay fracture bon après ma xool ba xool xam ni mënatu ma nekkaat comme kaana bi woon mooy fracture yi nii après gars yi commencé ñëw Kër Massar. parce que année boobu pourquoi pas ma créé centre de formation des carrières bi. parce que man si Gol l'a, xam quoi moom la gaay par défaut mak sama copain bi sama sama adjoint bi Aliou ñun góol lañu xam parce que bañuy ñuy góolu ñëpp xam nañ ñu ba ñuy góolu def ci góol waaw yalla dañu sural bo dañu dañoo mënoon góol nag moo tax ji bon sama xam-xam comme bëgg ma mu perte ma ne ji il faut me créer centre de formation des gardiens de but parce que Sénégal dafa bëri ay gardien mais bëri ay excellent gardien mais instant bi ni ni boy jot jaar centre bi xam nañ lan mooy njëriñu centre de formation des gardiens de but

bon su ma déggee li nga sa wax euh, ça veut centre bi amul fay. waaw centre bi amul fay ça veut dire ñun def defuñu centre bi pour wut xaalis dañ ko def pour Sénégal comme ni ñu raflee góol nii ñu dem ba après dëkk bi dootul am dëj problème parce que commencé na da ngay inscrire ñu jox la benn uniforme après ça ñu ñu entraîné la ñu ñu la entraîné ba nga ba jëm la transféré feneen bu ko defee après dina am benn protocole boo xam ne club bi su la soxlaa ñun dañ ci am pourcentage. voilà loolu mooy fay bi fay bi mooy suivi bi. voilà donc mën na ne ni état bi mi ngi lay dimbale wala ligue bi wala fédération wala maire bi. bon man moo li wax gars yi par défaut rek man benn sponsor laa am muy yàlla man man maire bi dimbaliwu ma état bi dimbaliwu ma fédération dimbaliwu ma bi nga gis fii yëpp ñun ñoo ko ñun ñun ñoo jël suñu propre moyen di débrouiller bu ñuy amee xaalis fële GFC comme fa lañ nekk comme papa gardien ki nekk daaru daaru salaam ñu cotisé ñoo jël suñuy matériel ñu teg bu ñu demee sélection U20 bu ñu amee xaalis ñoo jënd suñu matériel ñëw teg mais lii nii du pour Guédiawaye du pour Kaana lii pour Sénégal la parce que bon équipe bu ne gis na ko ci sa bopp parce que booy club boo dem am naa fi benn góol junior wala benn góol senior mais état kenn jàppale wuñu kenn te loolu du yoon. mais si sa biir wax dégg naa nga ne équipe nationale U20. Mhm. mais nan nga mën a boolee équipe nationale u ak euh, centre bi. lan nga mën a boole. waaw mais bokkul bu Sénégal soxlaa ñëpp a ñàkk man xëy centre bi man maa moom boo équipe nationale nag moom man Sénégal la tey jii sama adjoint bii nii Aliou su ma demee sélection moom mooy gérer du am benn problème parce que tey jii am nañ euh, ay euh, ay ay moniteurs yooyu nekk fii centre bi comme Adolphe ak Baye Kodoul ak kii nii sama adjoint bi bu ma demee affaire bi day am continuité day am même liggéey moo fi nekk su ma demee fee sélection comme yàggul. ay deux deux semaines liggéey bi daf nekk saa chaque jour bu ñu liggéeyee dañ ma envoyé ay vidéo ay photo ma xam li fi ak xew quoi. mais euh, gisoon nañ ni nga nga yor gardien bi yu Guédiawaye FC yi mais yow nan nga gisee Guédiawaye FC. waaw Guédiawaye FC moom bon man deux ans yi fa nekk yëpp équipe bi moo jël meilleur défense jël meilleur gardien jël deuxième meilleur buteur bon bu ñu demee ba ñoom seen biir xëy na seen bagage ñoom ñoo xam seen bon kii di ni ñu ko signé. Jamil nu mu signé ak ñoom loolu moom du ma ci débat parce que man bon Guédiawaye daal dëkk tey jii mais équipe bi daal nekkoon na foo xam ne tey jii ñëpp xam nañ ni Guédiawaye mi ngi avancé quoi am ñun man am na xam ne du ma ko wax parce que dañ naan fii daa far wala fële mais daal en tout cas mooy Jamil daal gisoon naa ni vraiment bi fi nekkee man defaluma dara mais équipe bi mi ngi doon avancé voilà. mais jaar Guédiawaye FC. Euh, nan nga leen gisee. góol FC dégg nga li la xanaa Moussa Sarr moo signé ak Birki Arabie Saoudite Mame Ndoye fii toj na réew mi yeneen position yi ñu ngi tegaat Sacré-Cœur ñeneen ñi ñu ngi joué bon deux ans yi mu fi def nii dem nañ ba Guédiawaye tey jii ay góol minim sax amuñu problème am mais tey jii nii nii bu ñu demee ba équipe bi nii fray ni nii bon man damay toog rek man sama centre la la géré parce que tey jii Guédiawaye moo nañu ren moo jël championnat bi mais tey jii bu ñu demee ba Guédiawaye wàcc mais ñu ñëppay perdant parce que équipe ñi nga xam ñoo ko yor quoi football surtout football xam ñoo ko yor mais duñ jël équipe jox ko ñoo xam la ñu bëgg dem toog fee di waax bon jëmil deux ans la signé woon quatre ans mais comme mi ngi dox nañu waxtaan ak moom jël équipe bi jox ko ko ñu liggéey man kenn mosuma dégg ci coow parce que xam naa ne bis bis bis moo ci coow rek ñu ni voilà Kaana wax na. mais Kaana gis nañ ne presque centre des gardiens de but. Hmm? mën nañ ne yaa ko njëkk a créé Sénégal. waaw mais gis nañ ni léegi centre yi bari na. Hmm? centre yi foo dégg ay gars yi ngi toog di entraîné ku nekk naan da ngay ibbi centre mais yow loolu nan nga ko gisee. waaw waaw mais xam nga tey jii bu ñu demee ba koy toppandoo ça veut dire dañoo gis njëriñ li quoi sant yàlla quoi bu ñu demee bay toppandoo centre bi ça veut dire kon damay sant yàlla parce que demoon nañ ba commencement bi ñu naan ah ay centre gardien fan la am am na ñu ma ko doon wax mais tey jii dañoo dem ba si biir ñoom ñoo ñëw naan ma fiis jox ma góol jàppal bu dina baax parce que man su ma xas ba téye dama ci dem ba jeex centre bi ma ay six gardien sept gardien ñu sol suñu lako noir yi mais bu ñu ba ay nit di ko créé tey bon di toppandoo dañuy sant yàlla quoi bon parce que li yombu tamit nekk ancien gardien ak nekk formateur c'est différent dama ko wax gars yi ñaari métier la nekk ancien gardien ak nekk formateur c'est différent mun nga nekk ancien gardien te doo xam lu ñu préparé gardien. mais Kaar yow xam nga est-ce que nombre bi nga am si si ay élèves xam nga nombre. non nombre bi moom dëgg yàlla mun hmm, moo capté mun moo capté parce que chaque deux jours am ñu ñu jógee Tivaouane am ñu jógee Casamance am ñu jógee Diourbel am ñu jógee Thiès am ñu jógee Kaolack. am na ku jógee kaw bërgi dé mën naa ko héberger mi ngi sama kër non naa fi léegi benn tubaab waaw am na Paris la nekk Paris waaw booy yëpp booy yëpp gannaaw gi yëpp fi la ñuy nekk di entraîné quoi bon gis naa fi ñoo xam ne tamit tey jii wuñ centre bi li ma li rek mooy centre bi fédération dañ ko war a protéger centre de formation des gardiens de but Sénégal ñoo ko war a protéger parce que booy nekk U20 bi tu l'as informé. en parlant de protection. Hmm. mais kaana tey bu comme sànq li nga wax saar bi mi ngi Arabie Saoudite. Ah. mais Moussa Sarr tey jii euh, signé bu mu signé Arabie Saoudite est que centre bi am na ci benn bénéfice. waaw bénéfice bi ñu ci am mooy centre de formation des gardiens de but day am récépissé mais du affilié wu équipe bu football mun affilié wu boo amul affiliation munoo am licence mënuñu la protéger mais am nañ accord reconnaissance boo xam ne fédération moo ko a accord de reconnaissance ku jël góolu kaana da ngay jaar fédération kaana accordé ko nga soog a dem mais président club yi laay ménager di waxtaan ak ñoom ñu am ñu am ay ay ñuy jox waaw mooy booy booy bi su demee naa jox dara mais du nekk si këyit te loolu du yoon dafa war nekk si këyit parce que mënu ma jël góol formé ko 4 ans 5 ans mu jaar tëngeej 6 mois am contrat arabe saoudite booy bi c'est contrat tëngeej am ay ressources kaana perte non loolu boy bi moy goré wala président bi goré mais ñun dañu wara a am accord de reconnaissance fédération mo wara a accordé centre de formation kan mais lolu jarna nga juk si taxaw si. si man si man si man si damay mujj wut avocat mu protéger ñu mu jël suñu gol ma taxaw tek sama loxo si taal bi neen hé eh, gol bi mako formé boy bi mako formé boy bi nek Paris ni tey jii Paris war na mën a joxe pourcentage bo xamné ne tey dañ ci am ben car wala ñu am ci ben affaire bo xamné ne centre bi li kat boy kan bi mo dem Paris mais non boy bi moy dem Paris ñew indi ay ballon wala mu indi ay ay ay équipement ne ma mais lolu man pour man du du bon du perdre quoi mais war nañu am lu upp lolu parce que lolu tamit nekul perte. non du perte parce que gis nañ ni geejju ay kenn jooyatul góol équipe nawetani fi nek ñepp ya leen jox góol. mais yow nan ngay def ak équipe nawetani yi. équipe nawetaan par des yow gis nga fele par des mu par des mu xol sey ñu bëri. entraîné ben boy bo xamne tay tey jii daa bandi wala entraîné ben boy bo xamne da won dawal saret wala entraîné ben boy bo xamne amul won jëriñ seen kër wala entraîneur koo xam ne da doon taxawal du jeu babi mu jël ko def ko góol fi yor fi ay góol yo xamné ñu bëri borom bàyyi ñu nek bandi ma jël protéger leen di leen watloo di leen di éduquer di leen jàngal chaque jour di ñew dox leen nank ba and ak mbeuri yi da leen da leen wax nank fa leen nek watul di leen entraîner bañ nek ay góol xam nga ci jëm benn góol doo yooyu maa leen di protéger bañu nek ay góol tay jii bu ko équipe na daan soxlaa booy bi dana leen kana nee tanka waxul nak mom duma ak da nga gis ay président club yu gore yo xam ne ñëw ma fils am jëlal ballon ok mané ok c'est bon am ñoo xam dañ nan no lo motax ñu jox kaana parce que néeg na lu dama ci ak ay dof parce que tey ji mënu ma fi stade bi 24 heures 24 chaque jour di formé amul kenn ku may jappalé amul kenn ku may may ndox amul kenn ku may di boîte pharmacie tey ji ma formé sama góol léegi da nga koy xëccoog man lool lool mënu nek voilà. lan moy jaar jaaru kaana. non mais jaar jaaru kaana mom bon dama koy terminer suma koy wax. te jii am na ñoo xam ne ko waxee si biir nit sax am na ñoo xam ne dañuy jooy que tey jii mënu ma nekk booy bu ndaw euh, cameraman bi xam na ma bu baax bu may joué jàmbaar kare sama première année kare jàmbaar maa jël coupe yëpp maa benn frère am maa jël coupe yëpp jàmbaar kare si li mu njëkkee def journal ma ñëw senior équipe bi nekk fii gis waay yi may joué yëpp jël naa leen ku ne trois trophées dem gul jaraaf quatre ans jël fa coupe du jël fa championnat am sélection def lu ne ci góol aw ma ci nag loo xam ne nit ñi dañ may coow mais am naa ci loo xam ne tey jii fii Guédiawaye fii def naa fi loo xam ne nee ma dañ ko gaaw a def mais kenn ko gaaw a def quand yële jàpp naa fa 59 penalty fële jaar naa fii fu ne jël naa ko coupe équipe bi nekk fii yëpp ku ne jël naa la coupe su ma demee tey jii ba aw ma xaalis c'est parce que ay fracture ay feebar moo ma sonal moo tax tey jii may ñaax booy ñu moytu yu bëri parce que tey jii man tey waroon naa nekk professionnel di ñëw di gaare oto ci stade bi ñu naan Kaana moo ñëw mais xëy tamit sama xam-xam yàlla moo ko fi téye pour gone yi man loolu laa gis dama am xam-xam boo xam ne ñii dañ ci war a jëriñ te dessin boobu noonu amul lu benn regret bu ma am si loolu noonu yàlla ma def tey jii lii ma am nii sax man moo ma gënal nekk formateur di entraîné booy booy di góolu maag sama xarit bi ñu naan kii jeune moo ko teree góol man timiyaab moo ma moo ma teree góol mais suñu njaboot gi nit ñu nit ñi indil benn ressource boo xam ne ñu ngi naan non ñun ñu ngi sant yàlla quoi kaan lan moo la gën a neex sa àdduna ak lan moo la gën a naqari sa àdduna eh, ak moo la gën a marqué sa vie. bon li ma gën a métti sama àdduna moom moo ñuy 31 décembre 2002 moo doon dem Coupe d'Afrique am fracture loolu moom gën a métti sama àdduna 31 décembre 2002 ma am fracture loolu mooy sama déception bi ma gën a métti sama àdduna. lan moo la gën a neex. li ma gën a neex sama àdduna mooy jaraaf asek bi may jàpp ñaari penalty yi biir Côte d'Ivoire si biir match bi loolu moom gën a neex sama àdduna voilà. monsieur Aliou waaw Aliou ngi nii ak adjoint Kaana euh, salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah euh, tur bi nan la euh, Alioune Badara Sow hmm. Alioune Badara Sow waaw mën na yow yaa Kaana yéen nekk si centre bi waaw waaw yàlla dafa def mën ak Kaana ñoo nekk ci centre bi depuis depuis ba mu formé ba léegi yàlla def na ni bon ñu bokk xalaat bokk benn gis-gis bon bi mu demee ba xam ne affaire bi sawaay lii lu war a mën a dem la mu woo ma ci la ma woo ma ne ko nag kat sawaay comme ñu ñoo bokkoon benn benn option bokk liñ bëgg-bëgg xam nga yàlla def dara lu xam boole ñu ñu ci laa ñëwee centre bi ñu commencé ànd liggéey. Alioune nan nga gisee centre bi. bon centre bi ni ma gisee bon comme ni mu li Kaana waxoon sànq parce que am na loo xam ne tey jii buñ koy lam-lame fii Sénégal euh, dafa nekk loo xam ne gisuñu ko mais centre bi yàlla dafa def biñ ko ubbee ba léegi. adduna bi yëpp ñu ngi commencé di coow centre formation centre formation fa mu dëkk sama côté gars yi foo ne li nga li nga fi li nga wuti fële ne mënoo nga ko am fii mais déedéet dama gis ni carrément fii centre bi liñ ñu fi am ni progression bu baax ñu ci am avancement bu baax a baax te ñu ciy sant yàlla. mais yow lan nga mën a wax ci centre bi quoi wala lan nga mën a wax ci Kaana. si Kaana lan nga si mën a wax quoi yow. waaw loolu dina ma neex trop question boobu dina ma neex parce que euh, di wax ni ñun fii la yendu fanaan fi parce que kana yàlla dafa def bi ñu xamante ba léegi wax dëgg fa yàlla nit la boo xamante ni man dama ne nit la quoi parce que nit koo xamante du tricher te lu nekk si boppam bu dee dëgg la da koy génnee léegi écrasé ko mu jeex ci mom parce nit ku dul jàppale ni loolu mooy nit parce que man tey ji dafa dem benn yàlla dafa def ñun ñaan ñoo bokk parce que tey jii man ku may jugé ci loolu la may jugé man su ma gisee dëgg dama koy wax te yàlla dafa def ni moom ci dëgg boobu ci la ñuy liggéey di ci dem di ci waxtaan moo tax yàlla boole ñu ñu ci bëri ñaan naka nga mu nekkee kaana naa nga man leen kaana ñoo bokk jikko te avancement laa ci gis franchement avancement laa ci gis mi ngi may jëriñ maa ngi koy jëriñ. merci mais kaana am na lu ma la fàtte laaj. waaw dama takk soxna semaine passée takk naa soxna semaine passée bon bi ma takk tamit sportif la comme man. dégg naa ne moom day góolu. waaw gardien la mooy gardien Ndiour ren moo jël meilleur gardien bon ñun parce que ñun suñu liggéey suñu liggéey moo laaj loolu quoi ñun fu ñu teg sportif surtout mu nekk gardien mi ngi nël ci kaw tribune bi. bu naa ko woo léegi nii parce que comme daa bëri kerta melul ni man mu présenté wu bu Diop waaw bu Sérène bu kii Ndiour euh, euh, international la waaw waaw lan nga mën a wax si Dieynaba voilà kooku moom dama ciy sawar tuuti parce que yàlla dafa def yàlla dafa def boole ñoo ko ay sportif parce que ñun dañ nekk ay sportif ba pare d'abord Dieyna man bi ma koy xam ba léegi ci foot féminin moom amul benn problème boo xam tey jii lu fut féminin am Sénégal yi ñu naan foot féminin foot féminin dafa bëri coow dafa bëri affaire mais yàlla dafa def ni moom a chaque match bu may ñëw assister seetaan ko saa moo ko seetaanee li ko war lay def noppi na du bokk ci benn bruit yàlla ne kii nii tey ji tey ji mooy doon tey suñu soxna moo tax tey bañ ko amee ba léegi rëcc wuñ won nañu jàmm wan nañu salaam te ñaan yàlla sëy bi sëy bi barke am nañ soxna nag te sportif la am waaye ça ah noo tudd Cheikh ban année nga ñëw si centre bi 2015 2015 ba léegi yaa ngi centre bi centre bi lan nga si jàng bari na noo gisee centre bi. baax na mais yow depuis 2015 yaa ngi ci centre bi instant bi am na équipe booy góol wala góol woo fenn. mu fenn. chaque jour da ngay ñëw centre bi di entraîner. waaw rarement rek moom la dul ñëw. rarement nga dul ñëw mais yow lan nga mën a wax si ci kaana mi lay entraîner centre bi. kii dama koy ñaanal yàlla rek yal na yàlla fay ci kii yombi centre bi yàlla avancé. yal na yàlla jàppale centre bi nu mu bëggee yal na may barki alxuraanu karim loolu laa ko ñaanal. alors merci. oui bonjour ça va bien merci. Euh, dégg nga olof. waaw dégg naa kii. tur bi André André Gérard Mayali. ok ban nationalité. française. française mais lan moo la poussé nga ñëw si centre bi. bon déjà Kaana mooy nit koo xamante ne ñi nekk Sénégal ay ni du bëri xam nañ ko quoi léegi lu baax c'est la dég si mom waaw léegi nekk benn jour dañ ma ko présenté ma dégg formateur gardien de but la ma ñëw fi si la commencé. Euh, fan nga jógee ñëw fi France. waaw France a jógee. est-ce que ba nga nekkee France daan nga euh, entraîné góol. waaw entraînement goal yu bëri kay chaque jour. noo gisee centre bi. non centre bi franchement borom xam-xam moo koy diriger quoi moy Kaana. waaw léegi nek moy ñi fi nek yépp amul kenn ko xamante ne dina fi def weer te ñu ne ayul. mais yow amoo problème pour intégrer ci biir centre bi. ak euh, yeneen nit ñi non non déedéet ak nit yu baax kese ñoo fi nekk wax dëgg dëgg discipline am na fii travail ak rigueur. merci. salaamaaleykum maaleykum salaam. tur bi nan la. man Adolphe Mendy. Adolphe Mendy mais Adolphe man yàgg naa dégg Adolphe mais Adolphe yow fan nga nekkoon. waaw man Adolphe Mendy waaw gi la dëkk. waaw joué naa fi Guédiawaye Guédiawaye FC waaw deux ans yëpp maa maa ngi foofu quoi. ok mais Adolphe yow ban année nga ñëw si centre bi. centre bi yaakaar naa foog naa si ci premier la premier arrivé la la bokk. depuis Tere Ndiaram. mais dégg naa dégg naa nga ne joué nga Guédiawaye FC deux ans. waaw deux mais gis naa ne ay góol yoo xam ne bu ñu demee championnat Ligue 1 rek bu ñu paree fu ñu jaaroon ñu forme leen duñ ñu fa jaaraat mais yow lan moo tax nga dem Guédiawaye FC. après revenir si bi di entraîner waat. waaw ah, loolu moom ba ma ko laajee nga fii da am tendance de gars yi duñu am duñu duñu am suivi wala duñu am fu ñu jaar ba ba ne ay góol fii nga gis seen seen lacune même ba si man comme boo amul boo amul comme préparateur yi day des toujours day des même bu nga góol Ligue day des te ñu instant si jàng lañ nekk wala chaque jour man su ma paree wala nekkee vacance mu ñëwaat fii gën a yokk yokkaat xam-xam bi gën a yokkaat travail bi. ya naa man man kese su démé ci mbéd bi wala une ay samay samay booy ñu may entraîné yaakaar naa du ma avancé mais suma ñëw ci kana fi fii yaakaar naa dana avancement bu reuy lu mo tax say mu amé vacances rek wala sama naam jeex rek ñu ñëwaat fii gën a mais na yow nan nga gissé kana waaw professionnel la suma professionnel rek comme bu war na war na ëmb lépp dañ dañuy jangal taxaway jang ñu jàpp moy mooy sang mu la wax rek tang amuñu comme genre yi day daf fi jafe dafa jafé ko fa jafé am comme Sénégal lu am lu melni ni comme boog ko am lu melni dem ci japp jabal japp so jàpp soo fu ko ñaar so juroom ñaar lo ndax avancement nga ci gis. mais damay profito ci occasion bi. Mm-hmm. pour laaj la benn question bu xamné gis nga daw problème géejuwaay bi num démé à tant que joueur ci équipe bi. équipe bi am problème yoy yow nan nga dundé problème yoy nga tok ben saison bu xamné ne góolu waaw waaw waaw moom kay dama koy méttitlu koy méttitlu bu baax baax ak yaa demone demone demone demone ba am ben ben tour bi. ci ci ci territoire national bi nii benn tour bi ba jël ba jël deuxième fii dem ba ay gars yi di jaay ay foo tourné gars yi ne géej waay géej rek benn benn genre benn genre groupe laa mën a wax benn genre groupe ñoo rek bëgg a yàq loolu bëgg a delluwaat suñu suñu suñu suñu suñu ville bi ginnaaw instant ñu ñu ñu bëgg a rey ville bi tak jamil comme lu mu ko waxee rek question dafa fa nekk moo tax mais avancement ville bi laa xool avancement dëkk bi tak géej mi noo am benn tour am benn ampleur bi si vote tout le monde ñep ñëpp si jàpp paa ak maire yi ñep ci japp fi bo touré gis maire gi way da nga da nga fier da nga am fier sa di sop maire gi waay di dem yenen yenen ville yi yenen dëkk yi da nga ya fu lu fu tol e, e, e, ci ci ki bi championnat bi la loolu moo ñu koy méttal lu bax koy lu euh, sa yi tol koy méttal waaw ban lan waaw waaw di ko di gërëm sant waaw dina ko mu rek affaire yi yombul di wax tamit yi ku am ku am ku bëgg avancé dal. ku bëgg dara dara si góol ñoo ñëw ñëw si kaana di di nga avancé ndax liggéey liggéey liggéey bu am solo la liggéey fii di ko ñaanal tamit moom gudd fan yàlla may ko ci lu mu bëgg centre bi ay góol ay professionnel di fi génn la ñaan ok comme nun leen ko waxee woon ñoo leen ko diggoon def nañ ko euh, jël nañ centre de formation bi xam naa ne fii ak 15 euh, jours wala un mois dinañ ñëw si beneen rubrique de sport ak keneen rubrique de sport bi nag moom info moo koy teg info mooy joxe lépp luy info fii si Géejawaay ak fii si Sénégal da leen suivre info boo demee page Facebook bi da nga ko fay fekk boo demee YouTube da nga ko fay gis euh, ñu def noonu ba beneen yoon jaa ngeen jëf.